Toujours dans votre acte du jour de ce 2 mai 2024 fii ci VIP People TV dañuy dellu soit qui maître Moussa Diop qui n'a pas xamante ne mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi defaat na révélation nag bu mag qui mag kii maître Moussa Diop qui est le chef du protocole Ousmane Sonko.

sénégalais yëpp xàmmee ko ràññee ko moom mii di maître Moussa Diop nee na moom moo ko recruté woon alors que amul woon sax BFM en tout cas yéen a xam muy Jibi Guèye euh, Jibi Guèye bii nga xamante ni mooy chef de service jamono ji jamono jooju nekkoon membre Pastef jëmale ko ci promotion bi nga xamante ni faucon du palais ñoom ci boppam ñoo ko interpellé woon pour que mu séddee lépp loo xamante ni Jibi Guèye ak kii nga xamante ni mooy employé modèle doon liggéey ak professionnalisme te amul benn connotation politique ki ko xam ne di kii nga xamante ni mooy maître Moussa Guèye bi mu poursuivre daal mi ngi semé lépp loo xamante xamante ni doute la ci bop ñi nga xamanteni moy journal ci parce que comprendre ñu ben yoon ki nga xamanteni mom mo dal di répliquer pour xam le ni que dal niveau d'étude yu Djibi Gueye dépassé wul woon li nga xamanteni manam moy 3e bi nga xamanteni fa ngay amee BFM ba nopi mu dal di koy nommé ci ben poste bo xamanteni chef de service la fofu ci Dakar Dem dik en tout cas Moussa Gueye Diop mo dugal bopam naka lañu mëna jëlé ki nga xamanteni amul BFM nga nommé ko chef de service ci Dakar Dem dik alors que am ñu fi nek jang am bac am maîtrise am licence déposé sen CV duñ ko xol en tout cas yow ya ñu wara a lool ginnaw bu mu renvoyer investigation yi daal di nay wax li nga xamanteni moy diplôme bi nga xamanteni ni pressé na pour que ñu dem dal di rechercher li nga xamanteni moy révélation bi ki nga xamanteni maître Moussa Gueye def nako ci Djibi Gueye di chefu protocole Ousmane Sonko mom moko recruter won woon ci Dakar Dem Dikk ko def ko chef de service alors que amul won niveau bi nga xamanteni ni niveau 3e <laughs> shit.